mo waral ndaje mi 10 millions yi nag tey jii da ko fas jox jigen ñi dañu fas yéene 5 5 euh, millions départagé ko ci 10 groupement mais lundi bi di ñëw dinañ continuer continuer financement yi parce que lepp xam nañ ne du xaj tay mais débloquer na 10 millions ba teg suñu loxo ne lolu pour famille la mu nek geste ba nga xam ne jigéen ñi tam dañ koy rafetlu parce que yag na koy def espoir fi maye woon jigéen ñi ay 2 millions mais tay dafa ne groupement de fans yi da ngeen di defaru su ma ñëwee def action ba nga xam di ngeen mën di liggéey ci seen groupement ci seen i lekkat ndax ngeen mën am ay revenu ndax kat mom groupement bi dañ daan dem ci banque yi di lepp mais mu gis ne taux yi ñu taux yi ñu leen di jox dafay dafay élevé ba mu ëpp mu ne léegi bu ma créé lekkat bu ma ñëwee financé leen yéen seen intérêt day delluwaat si yéen

moom dafa ñëw ci jamono bi nga xamante ne jigéen yi surtout euh, fii ci Pikine des fois dañuy jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllum seen liggéey alors yéen tey femmes euh, yi xaalis bi ngeen jot nii daal mën naa bon ci lan ak lan ngeen koy dugal. waaw parce que jigéen ñi fii dañu yàgg di liggéey si ay leket leket yi ni ñu koy defee mooy dañuy natt di ci dugal par juróom fukk par téeméer ça dépend rek ku nekk li ngay mën sax semaine di ko dugal mais dañuy am ay denc nga xamante ne léeg-léeg la ciy lebal. ngay liggéey mais moom dafa ñëw pour renforcer lekkat yi 500000 yi bu ñu la ko joxee da nga koy dugalaat si biir liggéey boobu di ko continuer di ko distribuer ci biir jigéen ñi ñoom bu ñu liggéeyee di fay mais ñun li ñu leen di jox du am benn intérêt ñun li ñuy remboursé ñoom li ñuy dugal dina am intérêt mais intérêt bi ñoom ñoo ko moom noonu lay liggéey ak jigéen ñi pour ba nga xamante ne bu ëllëgee ñoom mën nañu demal sax seen bopp seen lekkat yooyu dinañ dem ba am na lekkat yi nga xam ne dem nañ bay denc ay 2 millions 3 millions te volet boobu la ñu jaar. seen jafe-jafe yi seen jafe-jafe amuñu benn jafe-jafe xanaa kay amuñu moyen bu ñu bu ñu suqali loolu moo doon seen jafe-jafe mais ak lii mu ñu dimbalee nii tey jii jigéen ñi dinañ mën a dem incha allah.